The Minister of Health on Thursday visited quarantine centers to update the media on the level of preparedness in terms of isolation facilities for the COVID-19 patients. Public concern have been directed on the quality of these uh, centers after government announced millions in budget to maintain them. Well, Director of Health Promotion and Education at the Minister of Health, Modunjai, explained the purpose of the visit. You are here to see what we have to talk to Dr. Manja and his team, what facilities they are providing, be it for how do they get people from the provinces and other parts of the country to here, how do they manage them, and also um, uh, you also have a, uh, a, uh, right to ask any questions you want to ask, because he is the, these questions you are asking, the responses will also help us to clear certain doubts that people are also trying to portray on social media with regards to our facilities. The manager of the Badala Park, Dr. Abubakar uh, uh, Manjang, uh, to whom government uh, had paid uh, paid over $3 million eh, for the quarantine facility, spoke on the co coordination aspect of the program. One thing I want to make clear is quarantine doesn't mean that you are in prison. Understand? We have assignments. We have standard operating procedures in place. So if you come, um, you get to your rooms, you are given all the services necessary. Um, um, of course, your human right as well is respected. It doesn't mean that when you come, we lock you in a room and then we forget about you. No. You are in your room, we restrict your movement in terms of interaction with others. Dr. Uh, Bubakar Manyandea speaking, who is the manager of the uh, Badala Park Quarantine Center, and of course explaining on the, um, you know, uh, work there, saying uh, quarantine doesn't mean uh, that you are in, in prison. I think that was very, very good. Um, yes, su ko defee uh, ñu ñu ñëwaat ci waxtaan bi rek kon niñ ko gisee uh, ci ci li nga xamante ne mooy ci report bi waaye tamit ci Euh, ci euh, li nga xamante ne mooy ci images yi démba ministry of health ànd ak taskati xibaar yi yóbbu leen ci li nga xamante ne mooy ci béréb yu ñoo fajee euh, ñu ànd ak wala ñu am feebar bi wala fu ñëw sax li nga xamante ne mooy béree nag ñi nga xamante ne ñu yaakaar ne am nañ ko ci li nga xamante ne mooy ci réew mi Euh, nekkin bi because coow li bari na ci ñu bari ñu ngi laam-laame ndax Gambie am na facilité yi am na bërëb yi nga xamante ne mooy fu ñoo fajee nit ñi wala fu leen di bëree ak yu mel noonu toppatoo gi euh, moo taxoon ñu ànd ak ñu wane leen ñu ñu fa nekk tamit ñëw wax leen liggéey bi naka la faa demee foog naa ne loolu tamit lu am solo la day wàññi li nga xamante ne mooy euh, coow li jaxasoo ji ak yu mel noonu. waaw bokk na si liggéey bi tam parce que amul sooy askan wi anytime da nga war woon. askan bi fi nga toll ak li nga ah. defagum ba doo dee loolu rek ba nga gis ne fekk gars yi yooxu dégguloo ay yooxu yow doo war a def loolu te loolu dafa war si yow parce que lu ñu la dénk yaa ngi koo def dafa yomb trop nga lii fii la toll lii nii la au presse wane leen ko loolu am na si solo waaye lu ñu gis si ñi any rek fekk ay yooxu jibut lu ñu war a def duñ ko def wala lu ñu war a wane duñ ko war a wane so loolu nag dafa xala metti trop nit ki da nga war a xam sa responsabilité nga koo def xam li la war nga def ko mooy loolu so lu ñu def ni bu yàggaloon war a xam ñii fuñ nekk ak lan leen fa nekkee loolu warut umb askan bi comme na ko ku jiite foofu waxee nekk fa taxut yaa ngi président teg nañ la benn place nag mhm. président tam tegee benn place rek la waaye dafa utee wàññi sa jaxasoo waaw wàññi sa jaxasoo dootoo ko def waaw waaye bokkuñ condition yi leen fa teg mhm. waaye toogaay moom teg ñu teg la benn place demolo yëpp benn la waaye li leen fa tegee moo utee because after kii moom dafaa dem so loolu dem muy différence bi donc ak ak ak Précine Précine tam after living dafa de waaye nag dundin bi du benn ku nekk xam na ne hôtel ak Mile Two loolu du nekkul benn mm. so loolu moom différence bi nit ñi xam nañ ko foofu bot nag nag ñu government bi ak bunt yëpp banqaas yëpp leen war nañ koy def di ko def on time te fu mu toll nit ñi dañ ko war a yëg waaye bu xaar ba ay yoo jib ñu door a jóg di dem def lu ñoo def waaw ndax moom Mr Ndiaye sax mu ngi ko doon wax mu ne si social media bi ñu bari ñu ngi ci doon wax di wax euh, yu mel noonu moo tax ñoom tamit ñu fiil ne xëj na euh, jot na pour ñu ñu leeral wala sax wane li nga xamante ne mooy euh, béréb yi nuñ mel ak yu ak yu mel noonu Mariam ci ci ci ci li nga xamante ne mooy ci taxawaay bi moom ñam wax na ko ndax nga ko gisee waaye tamit ci ci ci nu mu ko waxee communication ci loo ci loo gis rek dafa am solo mm. wax ko ci waxtu bu niñ ko war a mun a waxee te loolu dafa am solo ñu bàyyi ba ñi commencé di wax ñu soog a ñëw wone li nga xamante ne mooy li ñu war a def balaa loolu euh, mm-hmm. noo gisee yëf yi. waaw amadu euh, li nga wax lu am solo la ñang lu mu wax lu am solo la parce que communication balaa soo gisee relationships yu bari ñu dee yaaxu lack of communication la wala late communication parce que nit soo ko commun soo ko war a communiquer soo ko waxee si teel rek dina xam fan la war a teg tànkam ak nu moo demee. waaye nga toog ma wax a wax a wax ba sonna yow nga ne teg rek wax a wax nga bàyyi ba may joxe gannaaw nga ne yaa ngi maa doog a wax su ma neexee ma déglu su ma neexee du ma déglu mm-hmm. fu mu nekk comme lu gars yi nii sax su neexee nit yi sax nit ñi duñ ko bugg a parce que dañoo woon because maa ngi gis nii si report bi ne nit ñi dañ fay gars yi over 3 million dalasis mm-hmm. so over 3 million dalasis from that 600 60 uh, million so nit ñi ba léegi ñu ngi laajte ana li des waaw so comme Gambia government lu gars war a def mooy suñ defee dara especially lii comme askan bi la lu nga xam ne da nga ko defal towards askan bi te askan bi Gambie comme dañ ne am ñu nga xam ne dañ deñ kumpa dañ dee buggal lu nga def rek nga wax ko suma aleel foo ko dugal bugga naa koo xam soo lii suñ ko teeloon a def because quarantine center yàgg na naa am mm-hmm. soo suñ ko teeloon a def teeloon na woon nit ñi ne fi benn pat bi fi len ko dugal. wa ah, xam nga li sa juro na fi coow ñeneen ñeneen ñi nga xamantene mhm. euh, bu ñu yegsee si réew mi amna fu len yobbu yóbbu. li tax ñu daw moy fi len tek ak baxut baxut ak yoyu li nga xamantene moy place bu bax ak yu mel non waaye su dem nañ bi du doon juk wa wa wa lool la gaan lool la gaay wara def na gis nga ni da nga communicate at at a very early stage wa so toge bem li li mu na am sa nit ñi sa duñ nango jël li bi sa ñu ne li mu na am mu nekk déployé rek because comme dëgga la amuñ raay pour wane comme ñi nga xam ne ñoo fa nekk under quarantine waaye lii mun naa nekk lu nga xam ne dañ man man mun na nit ñi mun nañu ne lii deploy la mhm. dañoo use this dalabaan yi mun naa am ñu dem bribe gaay nii rek pour lifin rek mhm. waaw après den démba sax den doon ak Banjul mhm. kon Banjul mu jëwut am dañ ko fooma yóbbu Baada la rek so nuñ expecté so lan moo tax foom ñu fooma Banjul te mu ngi woon si programme bi after Baada la Banjul den Banjul finally mu jëwut am so what was the problem